ah ah te tekkuma li nga wax de ah ah waaw dañu ne dama nuyu góor ñi benn yoon nuyu jigéen ñi fukki yoon ñu ne noonu laa tekki lu tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toog leen tuuti foofu kenn du way aha laaj bi rek laay tekki am da nga am lu ngeen nar waaw dafa am lu ñu nar sax de
dégg leen maa ngi tekki laaj rasulullah yi dafa jóge xaaru xira jàq xam nga loolu nu mu tolloon six cent dix à six cent dix la gis Jibril ca xaaru xira bisu altine moo tax bu ñu ne ne première école El Hadj Malick nee na mooy xaaru xira bu ñu ne premier élève neel mooy Mouhamed bu ñu ne premier professeur neel mooy Jibril El Hadj Malick ci génn ñàkk si kër si njool màkk jóge xaaru xira tiit yegg si di lox sàngu naan laqad xashitu ala nafsi jàq naa ci sama bopp góor ñëpp ne patt waxuñu jigéen ñi ñokket ni ko kan laa ab siir déedéet bégal bul jàq boobaa na góor ñi jigéen a ni ñokket ni ko kan laa ab siir déet bégal wallahi laa yuxzik allahu abadan maa ngi giñ ci yàlla ni yàlla du la gàcceel jigéen a ko wax bankal l'islam soxla jihaad jigéen a jëkk a sacrifier boppam tuur deretam alaaji may na sumayatu la tudd mook Abu Jahl la bokk ndey ak baay jigéen a jëkk a dee ci l'islam bankal ba njool Makka duggee xaaru xiraa jigéen a xotti séram bu mu cala monaa woon mu daa mel ne dégg nañu li may wax de ba rasululay duggee xeet xaaru xiraa jigéen a xotti séram bu mu calamonaa woon takke ko mbuus ma mu def lekku rasululay alaj ma rek tudde ko borom ñaari laxasaay yi zaatu nitaqayn samawha li shaqi nitaqiha di tarbita yaa tuuba li dil qidami ka takkaloon jol makka mbuus ma dalaloon ko ba mu tiikee jëkka tuur deretam ci lislaam minbar bi njol makk jëkka toog ca madinatul munawara di ca xutba gannaaw ba mu wàccee ak ga jigéen a ko def ñetti point yi ci laa dëgg ba ñeent ni jigéen ñi salaamaaleykum fukki yoon góor ñi benn xut wasalaam Sidi Aboubacar nee na góor ñi benn nuyoo ëpp na ci genn wàllu nuyoo ah ah jërëjëf sëñ Habib Allah
waaw kay
léegi nag yàlla dogal na yëf yi yëpp yëf yi mbokk la
yow te yow bu sa jëkkër guddee bu sa jëkkër guddee ñëpp yëg ko ñëpp yëg ko mu feeñ ci sa kanam mu feeñ ci sa kanam te yow it nag te yow it nag léeg-léeg nga génn lé- yow itam góor léeg-léeg nga génn tas àddina tas àddina bépp gaawantu gaawantu nag di dellu si di dellu si balay ñëw ba lay ñëw fas ko fi fekk fas nag nga ñëw fekk ko nag mu jiitu la ca kër ga nooy def waaw nan ngay def indi histoire indi nag histoire sa doom ngay jëkkër sëb sa doom ngay jëkk a xët saaga mbindaan mi ndey saaga mi naan mi ndey fakkataloo sa tànku jëkkër fakkastanoo sa tànku jëkkër ni ko ah yow danga may te teg saa yoo danga may teq teq la mun laa baal mun naa baal ma bopp
nga waaxu dem dellu nga waaxu dem dellu si ni ko daa reer ni ko waaw xanaa doo reer muy ku bëgg jàmm muy ku bëgg a jàmm ni la waaw muy jëkkër ji bëgg a jàmm rek ñu ne waaw dinaa reer téye kurusam téye kurusam jàkkaarloog télé jàkkaarloog télé bi gisatul li ci télé bi gisatul li ci télé bi wérdetul wérdatul ndax wedam na ndax nga dem na
nu muy def waaw nu muy def
te yaa ko tey te yow yaa ko tey dugg ci kër gi dugg ci kër gi nga ne ay am na nga di ay am na cey waajur waa jée ngi ci biir bi jiitooti na ma fi ma jiitootinoo fi nee nag
daal di xët sa doom daal di xët sa doom topp mën a le topp mën na lef saaga mbindaan saaga mi naan ma
amuloo xamuloo nooy def xamuloo nooy def nag nga dañar dañar yi ci nga taal bi nga dañar dañar rek ci taal bi dem dellu si lonk sa tànk ci lool ku sa tànk la ci tànk sa tànk jëkk tarxi tarxi ni ko da may i texa quoi da ngay teq teel mu la baal ma la baal mi nu muy def waaw nan lay def bëgg jàmm loolu bokk na ci li tax kër yi di tax loolu bokk na ci li tax kër yi tax
ñetteel bi ñetteel bi nag
moo di góor moo di góor amee kër amee kër denc fa jigéen denc fa jigéen bëgg ci moom baat bëgg ci moom baat te du ko gàddul dara te du ko gàddul dara kooku du sotti kooku nag moom du sotti moom tubay tubay ñaari loxo koy ñaari loxo koy teg sëri sëri ñaari loxo koy ñaari loxo koy teg
boo yanoo suba bi boo yenoo suba bi mu yanu ngoon mu yenu ngoon na ku nekk noppi na ku nekk noppi waxtu wu ngeen ñibbisee baax na waxtu wu ngeen ñibbisee baax na
waaye baat amatu fi waaye baat daal moom amatu fi fayal mbindaan mi ah fayal fayal fayal ndox waaw léegi da ngay fay ndox ma fay lam ma fay laa nga fay mbindaan nga fay mindaal ma jënd fourniti may jënd ay fourniture nangam nangam nangam nangam nga def añ nga def ay ma def rek ma def reer loolu kañ loolu ba kañ te nga jëli ko kër bàyyi indi ko sa kër
cohabitation la waaye du sëy waaye loolu habitation la waaye du sëy cohabitation cohabitation la mais du sëy
loolu mi ngi am loolu mi ngi am ku ko bañ ci sa kër nag ku ko bañ ci sa kër la la la yàlla teg ci ku takk jabar la la yàlla teg ci ku takk jabar na nga ko gàddu na nga ko gàddu moo gën moo gën
su amul soo amul loo gis loo gis dëgg ci sa tànk dëgg ci sa tànk te noppi
waaye itam nag waaye itam nag koo xam ni kii koo xam ne kii yaa ngi ak jëkkër yaa ngi jëkkër te loo ko laaj mun la nekk nekku fi te loo ko laaj mun na nekku fi bu xëyee ra tax la trois cent bu xëyee la tax la trois cent daal di daw daal di daw na nga am fulla waaye yow moom la ko jox di jigéen ja amul fulla bu dëddee rek bu dëggee rek
jëndal cent franc këriñ jëndal cent franc kër yi
cent franc suukar cent franc suukar cent franc ceeb cent franc ceeb gosil gosul ko
togg yakkal ko ci añ yàqal ko ci ay dencal ko ci reer football ko ci reer set
bu añtee bu añ see ñu ne lii nag ñu ne waaw yow lii nag nga ne ko cent franc suukar nga ne ko cent franc suukar cent franc ceeb cent franc ceeb cent franc këriñ cent franc kër ndox mi ci robinet bi laa ko jël ndox mi nag woon ci robinet bi laa ko jëlee
mu sotti mu sotti bu guddee nga taajaat ko ko bu guddee nga tàggat ko ko xiif di ko bëgg a rey xiif di ko bëgg a rey du nelaw du nelaw bu xëyee bu xëyee dana la jox cinq cent dana la jox cinq cent
nga dollil ko ca meew nga dollil ko ca meew
léegi mu matal léegi mu matal su ko defee su ko defee ngeen mën a nii nag ngeen mën a niinal
waaye bu la joxee trois cent waaye bu la joxee trois cent nga toggal ko ceebu jën yow dafa xëy jox la trois cent nga toggal ko ci ceeb ba jëm
attayal ko ci ataayal ko ca trois cent bu guddee nga taaj ko bu ganaar guddee nga taaj ko ganaar jox ko boisson teg ca poisson bokk ci di ko waxtaan waaye bokk ca nag di ko waxtaan def la ko café bu ëllëgee boo liggéey cent cinquante la lay waaye cent cinquante la lay jox ñu la lu góorgóorlu la góor góor ñun jamono bi neex jamono bi neexul loolu rek lay def kon nag dimbale leen seen bopp waaye kon nag dimbale leen seen bopp am leen fulla am leen fulla ku ci yorati tuut ku ci yoratus tuut sa jëkkër jox la dépense bu manqué sa jëkkër jox la dépense bu manqué buy dëdd bu dëgg jëndal sa yàpp jëndal sa yàpp gaaw koo lekk gaaw koo lekk yàq say doom woo say doom ngeen gaaw koo lekk sogal ko gis te toggal ko gusi amul fulla day dëgg
léegi léegi li ñuy gudd Sébikotane ne léegi mi ngi guddi ñuy ñaan yàlla yàlla leen yàlla fay amiin
ñaan ñaan bi la wax.
déglu leen déglu leen
ñaan na ñaan bi ko guddi fan ñaan bi waaye dama lay xamal ni la ñaan bi
dama ni yal na soo fan gudd ko ngi ay tas kër ci góor soo ko puyee sa jabar loo ko wax mu weddi ko biira ko taatake nelaw lekk dox wax guddee àll yendu garam place te boo ñëwee di yërt ay tànk naa ku jaar fii loo wax sa jabar mu weddi ko
déglu leen dama ni lii boo ko puyee sa jabar bu sa kër kër tasee yaa ko tas dama ni biira ko taata ki nelaw lekk dox wax guddee àll di yendu gaaram place te sa dépasse doyut te boo ñëwee di yër ay tànk naa ku jaar fii loo ko wax mu weddi ko damay wax susu ni kër la ko yor ay faala fulla ak fayda aku fit mooy taxawal kër jabar ji danga koy fonk faala ko tey fere ci moom ah yaa ngi dégg ah mënoo ko mënoo ko soo faree jabar ji dina falañu dina fay dem seen kër ne faax ngay fay li ba yàgg nga fase ko ñuy wit ay far te doo ko mën dara lu bopp déglu lu bokk déglu yaa ma fi sëriñ te billaahi billaahi ku jàppul ci yow jàpp na ci concal koy daw maa la ko wax ku jàppul ci yow jàpp na ci concal koy daw maa la ko wax andi waaw ci ñaan gi laa jëm ndax bu ne koo koy ñaan da nga ko naan soo fan gudd àddina xelu golo la da ngay xool sa kanam te gees sa ginnaaw lu ko mujj nga daanu ci kam dafa ko daa taxaw ñu jëloo romb ko ñu ne ko sëñ bi lu ñu daw mu ne yàlla mi ñi moo baax de moo faree ci nit kon waaw kon ñu déglu ma joxaat ko ñaan gi li may jëkk a wax yéen ñëpp yéen a ko bokk li may mu jox moo ko moom wa fitnatin ak fitna wal balaa ak mbas wal arax akuk lakk maa xaraxin akuk lap wal barxe akuk nelax maa saraxin akuk sàcc wal kàddeeku coono yal nañ ci yàlla musalmaa ji yéen li ci def nag yaa ko moom ndax ñu la jublu bari na te am na ñoo xam ne bu ñu sañan tey fii nga toog doo fi jóg waaw ndax yow bari ci jamono ji li arab yox naa min kalam laa fi xalba wax boo xam seytuñ leen waaye eggul sa xol kooku abrahan man sooroon la pënd bu ñu jëri nit boo koy bëgg da nga koy bëgg ngir yàlla kon ku la bëggul ngir yàlla yàlla na dee léegi balaa suba dem sawara sëñ Fallou Mbakke sëñ Fallou Mbakke kenn nit ni moom ci jamono benn waay daa dem ni ko Mbakke fel yaa ngi tas ndakaaru fel yi dañoo bari ñu ngi bëgg a tas ndakaaru mu ni ko fen yaa ko fopp te musu koo tas kon ñaan yàlla yàlla dimbali kon tàllal leen loxo yi ma ñaanal ko moom lay ñaanal nag bët bu aay ak cat lu aay ak xalima goo xam ne dina ñaw yàlla ko yàlla jël mu dem géej ci barke bi ilaahi pël xoray seen naar ilaahim wolof riñte séeréer sitaahi lawbe wa sayfi pël fa liix bu doo bambara rabba hansa joola béyti tubaab lesi malgas attaam xasunke min jooy maa njaago wa amum saru xule min xaw fin soosi suuratu korobora yal na la yàlla musal ci suñu ay
waaw léegi daal suñu bëttal nee na mbir mi daal xam ngeen ni du jeex waaye nag daal ñuy sant yàlla rek mbir mii nga xam ni nag moom la ñu def
yàlla ànd na ci yàlla ànd na ci
ci yàlla àndul woon bu ci yàlla àndul woon lu jamono xati waaw ni jamono xate ak ni soxla yi bare ak ni soxla yi bare kon nit ñu bare yeeweeku nañu ñibbi waaye kon nit ñu bare yeeweeku nañu ñoom ñëpp ñibbi waaye kenn ku ci ne yaa ngi toog waaye kenn ku ci ne fa tabarakallahu yaa ngi toog rek ci lan nga toog waaw te ci lan nga toog yéene bu sell yéena bu sell pas-pas bu dëgër pas-pas bu dëgër ak bëgg yàlla ak bëgg yàlla
kenn ku ne loolu la ci bare kenn ku ne looloo la fi bay kon yàlla na leen ko yàlla fay yàlla nañu yàlla dolli sutura yàlla ñu yàlla dolli suturaam ñuy ñaan ñu ngi ñaan
aajo du ñàkk aajo du ñàkk ñun ñii fi toog kenn ku ne am na ci loolu waaw ñun ñii fi toog kenn ku ne am ngay aajo yàlla na yàlla faj yëpp yàlla na yàlla faj aajo yëpp
ku ci tëdd ku ci tëdd yàlla na la yàlla yëkkati yàlla la yàlla yëkkati ku ci am ku tëdd ku ci am ku tëdd yàlla na la ko yàlla yëkkati yàlla na la ko yàlla yëkkati mu yëkkati ku gu ànd ak dund ak muy jàmm.
yëkkatiku nag gu ànd ak dund ak jàmm
li ñuy bëgg li ñuy bëgg as tuut as tuut su barkeel su barkeel ñu di ko euh, suturloo ñu di ko suturloo yal nañ ko yàlla jàppandal yàlla nañ ko yàlla jàppandaloo yàlla na jóge ci suñu kanam yàlla jóge ci sunu kanam jóge ci suñu gannaaw jóge ci sunu gannaaw jóge ci jóge ci ndeyjoor jóge ci càmmoñ jóge ci càmmooñ jóge fu ñu jóge fu ñu ko foog ko foog jóge fu ñu ko jóge yit fu ñu ko foogewul yàlla nañ ko yàlla jàppandal yàlla nañ ko yàlla boole defal Eh, mag ñi yàlla mag nañ yàlla nañ leen yàlla fayal ñi daal yàlla nañu leen yàlla fayal
mbokk yi mbokk yi
góor ak góor ak jigéen jigéen ku ci yëngu mag ak ndaw képp ku ci yëngu la ngay yëngu la ngay yëngu yàlla na la ci yàlla ba yàlla na la ko yàlla barkeelal yàlla na la ko yàlla barkeelal te ubbi la koy ubbi xéewal te ubbil la fa ay bunti xéewal saxal la ca te saxal la ca dara bañ koo yàq dara bañ ko yàq
yàlla yàlla na ko yàlla def na ko yàlla def xale yi jàng xale yi jàng yàlla na yàlla ubbi seen xel yàlla yàlla ubbi seen xel jàpp jàppandal leen jàppandal xam-xam leen xam-xam barkeelal leen ko barkeelal leen ko te sàmm leen te sàmm leen ba seen njàng àgg ba seen njàng ak ñu jubal leen ñu jubal leen jàppandalal leen liggéey jàppandal leen liggéey ñu jëriñoo ko ñu jëriñoo ko te seen i bokk fekkee te seeni bokk nag fekke ko
Euh, góor ñiy liggéey góor ñi liggéey ñiy wut liggéey ñi wut liggéey te amaguñu jaamuguñ ko jafe na jafe na waaye yomb na yàlla waaye yomb na yàlla yàlla mi lépp yomb na yàlla mi lépp yomb na yàlla na leen ko yombalal yàlla na leen ko yàlla yombalal jaay na bi Moustapha bi jaahi nabi Mustafa léegi nag léegi nag ku ci bëgg liggéey ku ci bëgg liggéey loo am lool jàpp ci jàpp ca te bàyyi taamu te bàyyi taamu bi ko amul la nga bëgg ku amul la nga bëgg da ngay jàpp ci la fa sëf da ngay jàpp ca la fa sës ba ba ngay am la nga ba da ngay am la nga bëgg bëgg waaye gàntu li fi sëf waaye gàntu li fi sës te doo jot ci la nga te bëgg doo jot ca la nga bëgg dara yeesu loolu dara yéesu ko
ñetteel bi ñetteel bi nag
moo di tukkikat yi moo di tukkikat yi ñuy tukki ñiy tukki
yàlla na yàlla di seen jiit yàlla na yàlla nekk seen jiit
di leen ommat ca tukki ba di leen ommat ca tukki ba di leen wéttali fa ñu dem di leen wéttali fa ñu jëm